salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Cincinnati man la seen xarit Pape Diouf a ah, namm naa leen lool lool yàkkamti nag ñëw biir Cincinnati tournée bi neex na lool waaye nag yàkkamti naa trop ñëw yi kon waa yi maa ngi leen di jox rendez-vous le 22 juillet fële ci Ramada Plaza ànd ak Alex Thiam suñu frère Momo Niang suñu frère kon je pense que ni pare ngeen ñun de pare nañ man pare naa Baye Babou pare na kon ñu ngi leen di jox rendez-vous le 22 juillet ca Ramada Plaza du yomb maa ngi woo ñëpp nag bàyyiwuma kenn maa ngi woo suma mag Ali Ndiaye chéri Adama di woo sama jigéen Ami Samake di woo sama jigéen Gita di woo suma frère Matar ñoom Suwaadu bàyyiwuma kenn kon dama ne bés nag lu tuuti borom lay tollool te Cincinnati dégg naa dangeen ne kenn leen ko yóbbu kon pare leen bett ñu leen nag baabu loo wax yeah man like you all heard from the mouth of the leader of Generation Conscience, Pape Diouf. We'll be giving you the best of Senegambian music. du yomba ñun pare nañ dafaa nekk Sénégal versus Gambia parce que Gambien yi ñu ne paap pare nga waaye ñoom it pare nañ parce que seen doom a ngi ñëw for the first time and opportunity bi yow yaa ma ko jox so lu nekk la ñoo jox gaay insha allah pare leen génn leen ñu defante ak gars yi que am nañ banaadu ah. ah. am nañ maalaw am nañ sëriñ maalaw bu bees maalaw bu bees incha allah du yomba jongante laa doon maalaw bu bees comme Gambien yi maa leen a oo ngeen ñëw ñu support incha allah pare leen Cincinnati on the twenty July ah du yomba comme nu ko Pape waxee ba pare nag fecc bu bees bi fii day xasan fii tamit day esen fépp bett ñu leen nag bett ñu leen yéen a ma gën a xam